bopp. yegg si nañ ci ñu fas yéene leen euh, dégtal xeetu yéenekaay yu fi yegg si fas yéene ko door rek Walf Quotidien mi xëyee mbirum yoon ak procédure judiciaire jëm ci procès Ousmane euh, Sonko dossier euh, mu soxal la tàbbi ca loxoy cour de justice bu CEDEAO yéenekaay bi di Walf Quotidien xëy ñu ko jàngatal gis ne nguurug Sénégal ci jamono ji day tendeefal yàkkamtuwul mbir yi sotti ndax bëgg na saxal candidature Ousmane Sonko ci élection présidentielle ñu jëm mu ngi ci Walf lu yéen kay bi fësal di njàng meek njàngale mi sooxe na lool ci talaata tey jii njàngale du am ci école yu bari bu ñu sukkandikoo ci kuréelu syndicat yi boot euh, jàngalekat yi mu ngi ci yéen kay bi di Walf Quotidien yéen kay bi di l'info mu ngi ñuy dégtal euh, nguurug Sénégal ak na mu cay doxale ci kanamu CEDEAO cour de justice bu CEDEAO yéen kay bi ne mbirum Sonko euh, fa la mujjee teere ji waaye nag état bi daanaka daj na fa dëgg noonee ko yéen kay di l'info fësale di kenn ci avocat Ousmane Sonko mi xam le ne nguurug Sénégal ma ngay nas ay ngir nasaxal ak faagaagal Ousmane Sonko ba bokk ci élection présidentielle yi ñu mu ngi ci euh, yéenekaay bi nga xamante ne mooy euh, l'info yéenekaay euh, geneen le mandat ñu dégtal Juan Branco ma nga woon démb ca cour de justice bu CEDEAO yekk na lu mel ne xeme nguurug Macky Sall nguurug Sénégal Juan Branco gis ne Ousmane Sonko mi lekk war a mun a bokk la ci élection présidentielle yu amul lenn lu encore te du be bokk ci yooyu la woote Juan Branco moo ni waxee mu ngi eh, ci yéen kaabi di le mandat le mandat xëy du ñu dégtalaat yi tamit eh, njàng meek eh, njàngale mi ne université yi daanaka yëf yi tàmbale naa sooxe lool ndax UCAD la mu bëgg mooy ubbi ay buntoom gannaaw juróomi weer yoo xamante ne toog nañ ko ba tax na loolee jur na ñaxtu jàngalekat ya ne ca université Cheikh Anta bu Ndakaaru dañoo bëgg a dem jàngale ji doon lu ci seen kaddu yéen kaabi la dépêche républicaine xëy dalal Alioune Sall di ci njiitu réew Macky Sall Alioune Sall jiite woon mairie bu Guédiawaye ci wàllu troisième mandat bi fi woon Alioune Sall xam ne mosta ànd ci njiitu réew Macky Sall mu amal euh, troisième mandat loolee njabootu njiitu réew mi euh, mosuñu cee ànd mu ngi ci yéene kii bi di la dépêche républicaine diggante mag euh, Ahmed Aïdara ma jiite léegi Guédiawaye amul lenn loo xamante ne jur na ko muy jafe-jafe seen diggante ñoom ñaar. mu ngi ci euh, yéenekaay bi yéenekaay bi di réew mi euh, quotidien mu ngi ñuy dégtal Amadou Ba di candidat bu Benno euh, mi ñu ne njiitu réew Macky Sall faf naa doon gilet ci wetam ba dara du laal ba dara du song wala boog dara du fagagal Amadou Ba ci yoonam jëm ci gunge ko ba mu faluwaat président ci réewum Sénégal 2024 doon du soxal njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bi di critique ne njiitu réew Macky ci jamono ji sax yittewoo na am parrainage parlementaire ndax booba léegi yi euh, candidat bu Benno Amadou Ba ma nga woon ci parrainage citoyen waaye nag ci jamono ji euh, seen xel dalu ca ndax fa mu dem am ñu fa fab ay euh, lim bu takku ci parrainage jébal ko ko bu ñu deful ndànk doublon leneen ak leneen mun na ca am ba tax na njiitu réew Macky Sall nara mooy ci parrainage parlementaire maanaam lay tax Amadou Ba mun a doon candidat mu jógee ca assemblée euh, nationale yéen a kaay ba ñuy dégtal yi tamit lu aju ci euh, euh, cour de justice bu CEDEAO dogal ga ñu war a joxe fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu ne lañ koy séntu mu war a addu ci turub Ousmane Sonko ndax dina bokkaat ci liste électorale yi loolee kayitu kalaame la ay avocat Ousmane Sonko jotoon ko faa yóbbu ba nu ñu xàññee Ousmane Sonko mu jot ci fii su parrainage am ak tas partem di Pastef loole yëpp jot nañ ko kalaame ca cour de justice. bu CEDEAO yéen kaabi di euh, turbine mu ngi ñuy dégtal lu aju ci Sénat ma ñu tas euh, Doudou Ndir ak ay ñoñam lañ fa jëlee tegaat fa ñeneen Abdoulaye Sylla moo ko jiite bees euh, turbine gis ne loole daanaka njuuj njaaj la goo xamante ne mu ngi tàmbale nuy aussi ci élection présidentielle yu 2024 bu ñu defu ndànk eko élection yooyu lay du jaar ci yoon jalgati ak i tamit salfañe ak la bëj carte yi mun na cee am bu ñu sukkandikoo ci turbine yéen kaabi di yor-yor gi xëy ñu dégtal njàng meek njàngale mi ñàkk a sàmmonteeg accord yi ñu jotoon a xaatim ak jàngalekat yi ak itamit ñàkk ubbi université yi doon yóbbee tey CUSEMS ak SAEMS ak itamit euh, nara soobu ci grève ñaxtu euh, jàkkaarloog nguur gi lu ko dalee ci talaata tey ji université yu bari euh, daañu yëngu yenn a bi di 24 heures xëy duñu dégtal ne njàng mu suufe meek njàng mu kayo mi ci jamono ji ñu ngi ci état d'urgence lu matamun a saafara la ci jamono jamono ji ndax jàngalekat yu bari ànduñu ci do doxalinu nguur gi ba tax na loolee nar leen a yóbbee tey eh, talaata joo xamante ne Eh, njàngale du am ci eh, même réew yéen bi di eh, Sud Quotidien xëy dugg ci classe yi te gisu fa jàngalekat ak élève ay table kese la fa fekk yéen a ne dooraat nañu ñaxtu ya ñoom jàngalekat yi ci journée école morte lañ ko duppee école gi dana wét lool ci talaata tey yi waa SAES e ñoom tàmbale nañu teg pression nguur gi yéen a kaabi di las di ñu dégtal ne syndicalistes yi yi nga xamante ñoo yëngu ci wàllu njàng ak njàngale cravaché nañu ki nga xamante ne mooy Cheikh Omar Anne Bougane bu doonoon euh, ci waxin maanaam ci euh, école ñu ne door nañu karawaas ba kii di Cheikh Omar Anne jawru ñu dénk wàllu njàng meek euh, njàngale mi ndax na mu waxee la jàngalekat yi àndut ak i tamit ñàkk saafara seen i jafe-jafe ba tax na ñu xëy du moyu l'école bu Sénégal ñoom kuréelu syndicat yi boot jàngalekat yi yenn a bi di los le quotidien xëy wutali tefes yi ne fii ci réew mi gàllu ci fi jógee di mbëkk mi wutali bitim réew ngir mun fa amee ji koom bi ne loolee lañ ci ture Macky Sall bëgg a dakkal ca na mu gën a gaawee ba tax na sàkku na ci gaa gi ak force de défense de sécurité ñu fexe ba taxawu askan wi eh, ci waax yi gaalu locco yi fi jóge ci waaxu Sénégal nees mun a def ba gaal yooyee dootuñ fi mun a jógee ñu mun leen a teg loxo mu ngi ci yéen a yi di le quotidien yéen a yi di eh, le soleil xëewu tali taaraar yaak sekoya eh, jëm ci campagne njëndum gertek njaayum gerte gi yéen a ñu dégtal Eh, juróom-ñeent fukki eh, milliards teg nañ ko ci taabal ji ngir jublu ci campagne u njëndum eh, gerte gi yéen a di suñu lamb yéen a di direct news lañ koy doore jëm ceex ci wàllu tàggat yaram nga xamante ne Jeux olympiques yu 2026 Sénégal war ko mun a daloo ci jamono ji wàccaay gi lépp yemb na ngir ñu ko amal ci anam yu mucc ayib yéen a di suñu lamb ne tey ma wax leen euh, lan moo may euh, Modou Lo ndam ci kaw Ama balde yéen a ne bokk na ci xarañ loo di Modou Lo euh, daanaka ña seq na ña dar daruñu Ama Baldé maanaam li ñag Modou Lo ñagul Ama balde ca Pikine ba ko ñaareel Ama Baldé daanaka amul ginnaaw ca Pikine ci jamono joo xamante ne Parcelles Assainies yëpp ña nga ca ginnaaw Modou Lo euh, te ama moom Pikine xar na ñaar ba ñett euh, bokk na ci ba ko ñetteel Modou Lo euh, daanaka entraînement la gën a faratal wuti doole waajal lamb ji. Eh, ci wàllu doole moom la eh, gën a faratal ne mbirum xar ga fuufa yéen kaabi di suñu làmb ne yi matuwaay moo tax eh, Modou Lo am ndam ci kam ci kaw Ama Baldé keroog ci takkusaanu dimanche gi weesu ci arène nationale yemoog fu ñu jeexale xibaaru suba si tënk la woon ci yéen kaay yi dañ ci dikkaat incha na mu gën a yaatoo Seydina Omar Ba defa naaje abonné leen suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te